li ñu ci jiital rek mooy dañuy jaale ñi nga xamante ne ñàkk nañ ci seen bakkan di massawu seen famille di leen ñaanal yàlla xare leen àjjana di ñaan aussi lu mel noonu bañ a amati euh, réew mi je pense que ñun ñëpp gis nañ situation bi nga xamante ne euh, yegg nañ ci euh, moi personnellement dama ne gisuma lu war a mën a tax ñu def yenn yi ci biir réew mi gisuma lu war a mën a tax jàmm ji senegal am ñu yàq ko gisuma lu war a mën a tax ni ñuy dunde ci suñu biir bokk ndey bokk baay mu yàqu gisuma lu war a mën a tax ñu yàq lenn loo xamante ne dafa amal njariñ askan askan bi njariñ euh, li ñu gis nag metti lu nañ ko euh, te ne nañ ko aussi parce que jàpp naa ne euh, réewu Sénégal ak mag ñi fi jaar ñëpp euh, réewu Sénégal ak fi démocratie am toll euh, jàpp woon ne war nañ mën a yegg ci di gis ay parti politique yuy gën a ndaw yi réew mi ngir ñu yàq réew mi loolu vraiment lu ñuy naqarlu la et puis lu ñuy wax ne du lu ñu war surtout jeunesse su Sénégal et que ku nekk ci ñun war na mën a jël responsabilité responsabilité boobu nag ci réew mi laa koy jëmale ku nekk ci ñun war nga mën a jël sa responsabilité ngir Sénégal nekk ci jàmm ku nekk ci ñun war nga mën a jël ay responsabilité ngir bien bi nga xamante ne Sénégal am nañ ko ñu sàmm ko ku nekk ci ñun war na mën a jël ay responsabilité ba du ñu génne ay doomu jàmbur ci mbedd mi ñu jàmmarloog ay force de l'ordre di jàmmaarloog ay ay defkatu lu bon ba ay mort d'homme di ci am vraiment ñuy jaalewaat encore une fois ñu ci ñàkk seen bakkan mais aussi di lancer un appel pour que lu mel ni vraiment bañ a amaat ci réew mi. état du Sénégal état bu am yërmande ci askanam la ndax euh, réew yi nga xamante ne ñoo ñu wër ci Afrique réew yi nga xamante ne lu mel ni keroog amoon na fa gis nañ la ñàkk seeni bakkan kon. Euh, état Sénégal je pense que mm, taxaw nañ ni ñu war a taxawee ñuy profito di féliciter encore une fois les forces de défence et de sécurité muy police euh, muy gendarmerie euh, muy armée bi muy képp koo xamante ne taxawoon nga pour que vraiment ordre bi dellusi si di wax ne rek policier bi taxaw ci koñ bi di protéger askan bi kooku du noonu jeunesse bi di wax ne rek homme de tenue bi taxaw ci banque bi wala ci école bi wala ci préfecture bi di protéger bërëb boobu euh, li ko war rek la war a lay def euh, ba tax na euh, rôle boobu nga xamante ne ñoom force de l'ordre yi am nañ ko askan bi dañ leen ko war a mën a nangul bañuñu ku génn wane sa naqar bañuñu ku organiser marche mais bañ nañ koo xamante ne yaa ngi génn di yàqal ay doomu aadama seen alal bañ nañ koo xamante ne yaa ngi génn di toj li nga xamante ne moom la askan bi toll ndax suñu waxantee dëgg lii ñu gis ñu def ko ci BRT bi defuñu ko kenn suñu bopp lañ ko def ndax berte bi du moomeelu président Macky Sall BRT bi moomeelu sénégalais yi la berte bi njariñ bi ci am njariñu sénégalais yi la ndaw ña fa war a liggéey dimbali seen njaboot seen njariñ la ña fa ñay xëy di ci jël di dem di liggéeyi te du ñu tardé seen njariñ la terre bi la même chose terre bi ñëpp gis nañ njariñ bi nga xamante ne am na ko ci askan bi gis nañ vraiment waa banlieue bi ni ñu koy jëlee même fonctionnaires yiy liggéey même les ministres de la république gis nañ leen ñuy jël terre bi di dem seen bërëbu liggéeyukaay wala di déplacé wu lu mel noonu je pense que suñ ko amee ci réew dañ ko war a sàmm lu mel noonu suñ ko amee ci réew daraay politique warul mën a tax ñu yàq lu mel ni terre bi daraay politique warul mën a tax ñu yàq berte daraay politique warul mën a tax ñu yàq bépp structure wala bépp infrastructure boo xamante ne day njariñ askan bi loolu nag dañ koy ñaawlu ba fa ñaawlu yem mais aussi di lancer waat un pour que sénégalais yi aussi yeewu wax dëgg fa yàlla ku la naan jugal dem yàq BRT ku la naan jugal dem yàq hôpital ku la naan jugal dem yàq préfecture ku la naan jugal dem yàq fa ñuy duggee marché lu mel ni Auchan kooku bëggalu la jàmm ndax la mu bëgg soo ko defee après lay metti ci yow lay jugee gis nañ ñetti fan yi jafe-jafe bi nga xamante ne sénégalais yi ñu ngi koy dund est-ce que ñu yeewu woon dem toj BRT bi est-ce que ñu yeewu woon dem attaquer Auchan bi ñooñu sentir nañ ko parce que ci ñëpp la metti kon lu mel noonu je pense que war nañ ko mën a moytu Sénégal war nañ mën a jël politique tege ko ne waaye ñu jël njariñu Sénégal ñu jël li amal sénégalais yi njariñ tege ko ne ndax je pense que ñaar yu bokkul la président Macky Sall li mu réaliser ci réew mi je pense que Afrique bari na ay dëkk yoo xamante ne ñee nañ ñu ci loolu gis nañ développement bi ni mu amee ci réew mi gis nañ infrastructure de dernière génération yi ñu am ci réew mi daraay warul mën a tax ñu génn dem taal ko wala dara warul mën a tax ñu génn dem yàq ko ndax suñ ko defee defalu ñu ko kudul suñu bopp kon jàpp naa ne lu mel noonu jeunesse bi dinañ gën a conscient yi ngeen ñi sax laay wax ci jeunesse bi parce que jeunes yi nga xamante ne bëgg nañ seen réew jeunes yi nga xamante ne fonk nañ seen réew jeunes yi nga xamante ne xam nañ ne ëllëgu réew mi ci seen loxo lay tegu je pense que jeunesse boobu du ñu génn di yàq ndax kenn buggu fee donn dëkk bu yàqu kenn bëggu fee donn dëkk boo xamante ne amul ay infrastructure yu mën a baral li nga xamante ne mooy développement kon jàpp naa ne jeunesse bi dinañ gën a am jël seeni responsabilité def la part des chose ku ne am nga droit fal ci parti politique ku nekk am nga droit faral ku la neex mais kenn amul droit génn yàq li nga xamante ne ñun sénégalais bi ñépp ko bokk kenn amul droit génn def loo xamante ne suñ la yeewee xaaju guddi wan la ko di nga yedd sa bopp te lu mel noonu lañ fi gis kon ñu ngi lancé waat un appel ñooñu nga xamante ne génnoon nañ def lu mel noonu ñu bañ a defate lu mel noonu ndax su boobaa suñ ko defee sénégalais yi la ñuy yàqal seen bopp la ñuy yàqal te jariñ te du amal njariñ kenn kon jàpp naa ne war nañ mën a gën a xoolaat taxawaay yi war nañ mën a gën a xoolaat façon bi nga xamante ne ñu ngi koy manifester te bañ cee boole jàkkaarloog ay force de l'ordre te bañ cee boole toj wala yàq loo xamante ne askan bi la amal njariñ état du Sénégal information yi muy am pour protéger suñuy bien état du Sénégal information yi muy am pour que yenn defkatu ñaawteef yi bañ a ndërmeelal suñu réew ñun amuñu ko te loolu lépp day dugg ci conséquence su nañuy defee manifestation yi je pense que aujourd'hui ña doon manifester suñu génnoon seen kër dox wax seen xalaat dellu seen kër kon duñu ñu toll ci foo xamante ne dinañ couper internet mais gis nañ vraiment li nga xamante ne mooy rôle bi ñu joué ci biir internet bi àdduna bi foo wër ñu ne Sénégal ngi tàkk ay nit ñoo xamante ne nekkuñu Sénégal ay nit ñoo xamante ne yeewoowuñ Sénégal nekk bitim réew di utiliser internet bi ngir sénégalais yi génn yàq li nga xamante ne moom la ñu moom lu mel noonu nag su amee je pense que l'État doit rester debout et que matukaay bi su fekkante ne dafa jub pour protéger askan bi ànd naa ci su fekkante ne dafa jub pour que ñaaw defkatu ñaaw ñaawteef yooyu di pousser jeunesse bi di pousser ñenn ñi ngir ñu génn yàq li nga xamante ne am na senegal ànd naa ci ndax lépp moo ñu gënal dëkk bu tàkk lépp moo ñu gënal dëkk bu amul sécurité lépp moo ñu gënal dëkk boo xamante ne nit ñi ñi ngi génn di yàqal nit ñi seen bërëbu liggéeyukaay moo ñu gënal dëkk boo xamante ne dinañ jël ay yëfi jàmbur di ko yàq kon matukaay bu mel noonu je pense que pour sàmm kaaraange réew mi la je pense que pour éviter yenn yi am suñu réew la te lu mel noonu vraiment dañ ciy d'accord euh, balaa may ñëw ci réponse dialogue bi dafa am leeral boo xamante ne fokk ñu leeral ko sénégalais yi ndax dañoo gis ñoo xamante ne dañ naan ay société civile lañ maanaam faruñu ci kujje gi faruñu ci pouvoir bi ñu am lu baree bari lu ñuy seetlu ñooñu di wax société civile mësuñu leen dégg ñu génn taxaw ne opposition Sénégal li ngeen wax waroo leen ko wax mësuñu génn gis ñu génn taxaw ne opposition Sénégal li ngeen def waruñu koo def te jàpp naa ne kii woote société civile ne da ngaa neutre jàmm réew mi moo la ñor kii woote société civile ne da ngaa bëgg a jàmm ci réew mi soo déggee ku taxaw ne maa ngi dem dakaar yóbbu fa xeex bi cooki fin laa fay yóbbu est-ce que Ousmane Sonko ba mu waxee ne cooki fin bi dama koy yóbbu dakaar est-ce que gis nañ benn société civile bu génn ne eh Ousmane Sonko dëkk bi du dëkk cooki fin tolluñu ci jamono bu ñuy reyante amul kenn ku ci interpellé gis nañ opposition bi discours bi nga xamante ne ñu ngi koy def di inciter population bi ñu génn ku gis communiqué bi nga xamante ne le parti Pastef génn nañ ko ci jamono bi nga xamante ne ay manifestation am na est-ce que gis nga benn opposition benn société civile bu génn ne e yéen waa Pastef seen communiqué bii ngeen génn pour gën demander xale yi ñu gën a taal réew mi pour demander xale yi ñu jël alalu jàmbur pour demander xale yi ñu jàmmaarloog ak FDS yi du seen rôle muy Alioune Tine muy Seydi Gassama amul kenn koo xamante ne gis nañ la nga génn ñaawlu loolu et pourtant ñi ngi fi yow dégg nga ko man dégg naa ko ñun ñëpp dégg nañ ne cooki fin bi dakaar lay amee pourquoi kooku waxoon cooki fin waxuñu ko woon ne bul ñëw Dakar dafa indi cooki fin pour pourquoi kooku waxuñu ko woon ne li nga wax waruñu koo wax mais li ñu seetlu mooy société civile bu far te société civile su fekkee dem nga ba far nekkatoo société civile état bi aussi dañoo bëgg ñu jël seeni responsabilité ndax société ñooñu nga xamante ne dañ naan ay organisation société civile lañ te ñëpp gis seen taxawaay ñëpp gis ni nga xamante ne ñu ngi koy def ngir dëkk bi bañ a am jàmm ñu informer les organisations yi nga xamante ne nekk nañ ci àdduna bi ñu bañ leen a reconnaître comme ay société civile ndax jàpp naa ne nekkatuñ société civile ndax société civile mooy kuy woote jàmm société civile mooy koo xamante ne bëgg nga kujje gi ak pouvoir bi di waxtaan di juboo pour que ñëpp mën a am jàmm si réew mi mën a am jàmm mais taxawaay bi nga xamante ne ñenn ñu ci société civile gis nañ ñu taxawoo ko rafetluwuñu ko bi ci njëkk mooy dialogue bi nga ma laaj le président Macky Sall c'est le père de la nation su demee ba ne kaa ñu pencoo suñu réew su demee ba ne kaa ñu waxtaan suñu réew je pense que def na li ko war bépp responsable politique bu ne dew ma ca pencoo réew ma bëggoo Sénégal sa intérêt moo la ñor bépp responsable politique bu taxaw ŋàññ pencoo réew mi bëggoo réew mi sa intérêt moo la ñor ñoo ñu di woote société civile muy Aylin Tine ak Seydi Gassama tey kenn waru leen woon jiitu ci taabalu jalog bi mais est-ce que dem nañ pour waxtaan ngir nga njariñu réew mi demuñu est-ce que ñëw nañ participer ci dialogue bi ñëwuñu kon intére Sénégal ñoru leen dialogue bi nag dafa ñëw ci waxtu bi mu ñëwee ndax dañuy sant yàlla ñun Sénégal li nga xamante ne dëkk yépp a ngi koy wër ngir am ko ñun yàlla daf ñu ko jagleel dañoo am pétrole dañoo am gaz suñu yàlla dimbalee dinañ toog bay fàttaliku coono yi nga xamante ne daan nañ ko dund avant ñuy exploiter suñu pétrole suñu gaz waaye pétrole boobu ak gaz boobu dafa am ay nit yoo xamante ne bëggoon nañ ñëw liggéey ko Sénégal yàlla dogalul ñu liggéey ko ndax ku nekk ak wërsëgam mais ñooñu nga xamante ne bëggoon nañ ko ñëw jël te yàlla joxu leen ko ñooñu ñëpp tey dañoo taxaw ngir taal réew mi pour mën a dugg mën a sàcc suñu pétrole mën a sàcc suñu gaz li li lu bari li ngay gis yenn kujje opposition bi ñu bari dañoo dem lëkkalook ñooñu ànd ak ñoom ngir taal réew mi ngir ñu mën a ñëw jël suñu pétrole jël suñu gaz le président Macky Sall ci yërmandeem ak ci cofeelam bi mu am ci réewam moo tax mu ne kaay ñun ñëpp ñu ànd waxtaan nan lañ mën a def ba gën a dëgëral suñu sécurité réew nan lañ mën a def ba benn ñaaw ñaawteef du am ci suñu biir réew nan lañ mën a def ba lii nga xamante ne yàlla jagleel ñu ko muy pétrole muy gaz kaay leen ñu péncoo ànd ci bokk waxtaan ba ëllëg mu mën a jariñ askan bi nan lañ mën a def ba situation politique bi nga xamante ne nekk nañ ci ñu toog waxtaan ci pour mën am jàmm ci li nga xamante ne mooy terrain politique bi je pense que loolu mooy rôle lu leader le président Macky Sall su defee loolu da koo def ndax dafa am dafa xam waree fam te ba mu dalee jiite Sénégal ba tey kenn mësu koo gis mu wàcc ci wareefam kenn mësu koo gis mu wax lu ñaaw kenn mësu koo gis mu woote mortal combat kenn mësu koo gis mu woote cooki fin ci jaloog ak ci àndandoo gouverner képp lañ ko gis histoire politique wane na ne le président Macky Sall moo fi jiite ab coalition bu diriger am réew presque pendant douze ans ànd ak ñi nga xamante ne da nga doon xëccoog ñoom bokk ak ñoom gérer réew mi loolu rek day wane misaal ne dialogue bi mu woo acteur politique yi sincérité la ko defee ndax nit ki noonu la mel noonu la gouverner ba fi ñu yegg nii ak fi réew mi toll ak fi àddina bi toll mu ne kaay leen ñu gën a yaatal waxtaan boobu coalition bi mu bokk ñëw yeneen coalition yi ñëw ngir kër ñu waxtaan kon dialogue bi ñun dañ koy rafetlu di ci am yaakaar di ci am yaakaar pour que ñu jiital intérêt Sénégal te jàpp naa ne le président Macky Sall loolu kase moo ko ñor jàmm Sénégal intérêt Sénégal développement Sénégal kon rafet nañ njortu ne dialogue bi dinañ fa jëlee ay waxtaan yoo xamante ne dina jariñ askan bi dina fexe ba Sénégal nekk réewu jàmm ñëpp juboo malgré que suñu bokkul partie politique dina tax ba Sénégal am sécurité ba kenn du jóge ci biti ñëw suñu biir réew taal ko dina tax ba Sénégal lépp loo xamante ne yàlla jagleel nañu ko muy pétrole bi ak gaz bi ak yeneen ressources naturelles yi ñu koy pencoo di ci waxtaan ngir askan bi mën cee jariñu damay fàttali Idrissa Seck le président Idrissa Seck ñëpp dégg nañ ko pourtant kujje la ndax dafa soxla réew mi mais li mu wax dafa leer le président Macky Sall ni mu sàmmee pétrole beeg gazu Sénégal wane na ne dafa bëgg Sénégal ndax la sàmm dem na bay xalaat xale yi nga xamante ne juddooguñu ngir ñu mën cee jariñu kon kooku je pense que intérêt Sénégal képp moo ko ñor kon jaloog bi dañuy lancer un appel ñi nga xamante ne demaguñ ci nañu dem ndax jàpp nañ ne képp koo xamante ne demoo ci jaloog bi waxtaan ngir jàmmul réew mi yow noonu Sénégal nga jàpp nañ ne bépp société civile bu demul ci jaloog bi ngir waxtaan jàmm Sénégal jàpp nañ ne noonu Sénégal nga kon ñuy lancer waat un appel aux acteurs politiques aux acteurs yi nga xamante ne nekk nañ ci société civile bi ñu dem rejoindre dialogue bi ñu waxtaan mën a continuer nekk dëkku jàmm mën a continuer nekk dëkku teraanga comme ni ñu ko ñëpp xame je pense que li ñu naan candidature boo gis engagement personnel la kuy déclarer candidature amit moom moo ko moomal boppam mais ñun. coalition Benno Bokk Yaakaar comme ni ma ko yàgg di waxee le président Macky Sall mooy suñu candidat moo xam wax na ko moo xam waxuñu ko mais gis nañ ne parmi les acteurs politiques yi nekk Sénégal gis nañ ne parmi ñi nga xamante ne dañoo bëgg a yor réew mi parcours bi président Macky Sall la am kenn gënu ko cee xam état ndax gis nañ ne directeur la tàmbalee ba président de la république te ñi nga xamante ne ñi ngi xëccoog moom réew mi gisuma kenn ko ci am parcours boobu gis nañ ne ba mu yoree réew mi ak léegi développement yi mu fi def benn nguur musu koo def kon mooy suñu candidat ndax loolu mu ñu wan doy nañu gis nañ ne jàmm ji nga xamante ne bëgg na ko ci réew mi ba tax boobu ba tey mu ubbi dialogue ci njàng mi mu ubbi jaloog ci enseignement bi mu ubbi dialogue ngir ngir ngir ngir ak gaz secteur santé mu ubbi dialogue bépp secteur boo xamante ne dafa téye développement réew mi mu ubbi ci dialogue ne kaay leen ñu waxtaan kaay leen ñu pencoo te gisuñu kenn koo xamante ne ci wujje bi am nga boppu vision kon ku mel noonu su ko Sénégal amee du ñu xalaat beneen candidat bu dul moom kon ñun moom mooy suñu candidat maintenant jàpp naa ne report élection ak bañ a report élection lépp dina jóge ci pencoo bi nga xamante ne acteur politique yi ak kilifa diine yi ñu ngi koy am ndax suñ nee dañuy woote dialogue dañ naan kaay leen ñu waxtaan ñu xool suñu réew nan lañ mën a def ba jàmm am fi suñu réew nan lañ mën a def ba ba ba tension politique bañ a am nan lañ mën a def ba juboo ci benn kàddu ñun ñëpp ñu tënku ci kon kon jàpp naa ne ña nekk ca jaloog ba su dee report élection moo mooy indi jàmm moo indi jàmm ci réew mi jàpp naa ne ñoom dinañ ko décider su dee bañ a report élection dina tax aussi jàmm am ci réew mi jàpp naa ne dinañ ko décider kon jàpp naa ne bépp décision bu jëm ci élection yi acteur politique ya toog ca table di ko waxtaane dinañ xool baña fàtt bañ a fàtte fàtte seeni intérêt bañ a fàtte intérêt Sénégal ba décider fa loo xamante ne suñ ko génnee dëkk bi dina am dal dina am jàmm acteurs yi ku ci war a bokk di nga ci bokk ku ci war a jongante di ngeen ci jongante ñu ànd vraiment développé ak continuer développement bi nga xamante ne am na ci réew mi kon encore une fois dialogue bi dañ koy rafetlu di ci am yaakaar jàpp naa ne le président Macky Sall bi présider dialogue bi kenn naatamlewul cofeelam ci Sénégal kenn naatamlewul bëgg jàmmam ci Sénégal kenn naatamlewul gis-gis bu mu am ci développement wu Sénégal ndax ñu ngi koy commencé dund infrastructure yi ñu am je pense que Afrique ñu bari amuñu ko dëkk bi ni mu développé je pense que Afrique ñu bari développé wuñu ko waxatuma nag Sénégal ki nga xamante ne moo toog présider dialogue bi ñëpp gis nañ taxawaay bi mu am ci bànqaas yi nga xamante ne moo am ci àdduna bi gis nañ taxawaayam ci Nations Unies gis nañ cër bi nga xamante ne àdduna bi jox na ko kon ku mel noonu su jiitee dialogue jàpp naa ne njariñu Sénégal képp moo fay jóge ndax moom njariñu Sénégal njariñu Afrique ak njariñu àdduna ñëpp nangul nañ ko ko ñëpp gis nañ nim ciy liggéeyee ñëpp gis nañ nim ciy taxawee ñu war cee mën a fier ñun sénégalais yi ñu xam doomu Afrique bu mel ni le président Macky Sall di taxaw ci bànqaas yi gën a mag ci àdduna bi di porter li nga xamante ne mooy doléance africain yi waaye di porter li nga xamante ne mooy doléance sénégalais yi ba tax tey foo ne président Macky Sall ñu ne c'est un exemple dans le continent africain kon ñi nga xamante ne dañoo nekkaat Sénégal bëgg yor réew mi nañu jël exemple ci le président Macky Sall nañu jël exemple ci parcours am nañu gis ne ba mu soxlaa réew mi dafa génn dem wax ak askan bi ba nit ñi taxawee place de pendant di xeex di xuloo dafa dem campagne askan bi askan bi fal ko mu nekk njiitu réew nañu gis ne ba mu yoree réew mi ba tey musul def violence musul woote violence ci jàmmoo ak ci waxtaan képp lañ ci def loolu moo war a nekk taxawaayu vraiment les hommes politiques mais mënuñu d'accord di gis ay hommes politiques yoo xamante ne dañuy génne xale yi pour ñu xeex mënuñu d'accord di gis ay hommes yoo xamante ne dañuy gën a dundal insécurité ci réew mi ak fi ñu toll dëkk yi ñu wër yépp ay guerre am fa kon ñoom su dee njariñu Sénégal moo tax ñu dugg ci politique jàpp naa ne dañoo war a woote jàmm woote salaam dem ca waxtaan ba bokk ca waxtaan ba ngir ëllëg njariñ bay jóge ci waxtaan ba nekk vraiment lu sénégalais yépp mën a sentir mu doon aussi li gën ci réew mi message bi may gën a lancé la coalition Benno Bokk Yaakaar mooy nañ waxante dëgg nañu responsabiliser la jeunesse te président Macky Sall jeunes yi nga xamante ne jël na leen dénk leen ay responsabilité ñooñu aussi jouer rôle bi nga xamante ne muy rôle intermédiaire bi ñu war a jouer entre la jeunesse du Sénégal ak le président Macky Sall les responsables politiques yi nga xamante ne président da leen a teg dans les départements ñoom ñu jouer rôle bi nga xamante ne moom la ñu war a jouer muy intermédiaire entre ñoom ak le président Macky Sall je pense que aujourd'hui fi mu toll dañoo war a gën a wàcc ci base bi dañoo war a gën a jege sénégalais yi ndax un acteur politique mooy comme man par exemple ci département de Bambey bi ma bokk man jàpp naa ne na may defee politique ca département de Bambey noonu la ñu war a defee politique xam nga muy lan. muy xool njariñ bi président Macky Sall indil askan bi te askan bi mën cee bañ a jote yow nga dem jàppale askan bi ba vision boobu ak programme boobu président Macky Sall am ñu mën cee jariñu mais Sénégal kenn waratu fi am problème mu santé ndax couverture maladie universelle kon na responsable politique yi dem accompagner population bi wax leen yan condition lañ ci mën a jariñu gunge leen ngir que ñu mën cee mën a jariñu gis nañ vraiment programme financement yi président Macky Sall indi pour askan bi na responsable Benno Bokk Yaakaar yooyu wàcc à la base accompagner population yi ngir ñu mën cee jariñu ndax du ñëpp ñoo am la bonne information mais aujourd'hui suñu rôle ñun en tant que responsable Benno Bokk Yaakaar mooy wàcc à la base gunge population yi ba programme ak projet yi nga xamante ne président Macky Sall indi na ko ngir gën a ñogal dund ñu Sénégal yi Sénégalais yi mën cee vraiment jariñu ci di leen wax ne nañu accompagner encore encore et encore la jeunesse de la coalition Benno Bokk Yaakaar bu ñu fàtte ndaw ñi Marena fan yi passé bi dëkk bi méttee gisuma DG non man gisuma ministre non man gisuma kenn koo xamante ne am nga nomination xam nga ñan laa gis ñoon Mamadou Ndiaye Bambay ñoon Ablaye Yakhine ñoon Rama Maki ñoon Kaliphone Sall ñoon Alex kambel ñooñu laa gis Marena ñii ma la limal est-ce que xam nga ne dara tënku leen ci nguur gi lu dul bëgg la président Macky Sall dara tënku leen ci nguur gi lu dul am cofeel ci président Macky Sall dara tënku leen lu dul pour le président Macky Sall parce que xam nañ ne moo gën ci réew mi mais nañu fàttaliku xale yi na responsable politique gu Benno Bokk Yaakaar jàppale la jeunesse de la coalition Benno Bokk Yaakaar nañ leen jàppale en terme de moyens pour que ñu mën a jouer rôle bi ñu war a jouer ndax ku nekk am nga yéene mais yéene dafa am lu koy yeggali ay moyens moo koy yeggali xale yi kenn du naataam la ne am nañ engagement dama ne. jamono bi ñu génnee ci manifestation yi yaa la jeunesse ñoo taxawoon di défendre le président Macky Sall demal TikTok demal ci Facebook bi ñoom kase ñooy génn exposer seen bopp parce que lan parce que dañoo bëgg le président Macky Sall parce que dañoo gëm ne dañoo wara a taxawu le président Macky mais loolu ndaw ñi di def mais mag ñi ñoo leen ci war a jàppale kon nañ gën a jàppale la jeunesse de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais aussi le président Macky Sall xàmmee ràññee ñi nga xamante ne pare nañ pour mouiller la maillot parce que mën nga jël benn nit defal ko promotion defal ko nomination mais su mouiller la mayoo jotee day fay téléphone kii mouiller la maillot sax da koy woo naan ko mais boo yow yaa ngi risqué man ñaata appel laa jot ci boo yow vidéo yi ngay def yaa ngi wane sa bopp da ngay exposer sa famille mais suñ ko deful kan moo koy def ñun suñu défendrul la république ñun suñu défendrul la le président Macky ñun jeunesse su Benno Bokk Yaakaar kan moo koy def donc suñu rôle la te dañ koo war di def maintenant ñoom responsable yi bokk dans la dans dans dans la coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo war a gën a jouer seen rôle gën a taxaw la jeunesse gën a accompagner la jeunesse gën a responsabiliser la jeunesse pour que liggéey bi ñu war a liggéey le président Macky Sall ndaw ñi gën koo liggéey ndax vraiment ay jàmbaar lañ. di leen féliciter encore une fois di leen encourager di leen wax ne l'avenir c'est nu le président Macky Sall ku gis projet yi mu teg Sénégal ku gis programme yi mu teg Sénégal nga xam ne pour ndawi Sénégal la encore ñuy wax ne jeunesse su Sénégal ku ne am nga droit far fu la neex ku ne am nga droit ne diw mooy sama responsable politique mais ñun ndawi Sénégal muy ndawi opposition bi muy ndaw ñi nekk ci pouvoir bi ñun amuñu droit kenn di ñu manipuler pour ñu génn jàmbaarloog le force de l'ordre ñun jeunesse su Sénégal amuñu droit kenn di ñu sant ngir ñu génn taal réew mi amuñu droit kenn di ñu wax ne nañ tayle suñu bakkan ndax ku dee sa yaay juraat amuñu droit kenn bañ ñoo gis ci li nga xamante ne mooy sécurité réew mi mooy jàmm réew mi mooy développement réew mi kon na ndawi Sénégal gën a delloo si seen xel ñi nga xamante ne dañ doon génn bokk ci loolu nga xamante ne ay noonu Sénégal ñoo ko wootee muy taal réew mi nañu delloo si seen xel xam ne dañoo am ndey dañoo am baay dañoo am famille dañoo am ay doom wala war nañ am famille war nañ am ay doom te bépp politicien bu la naan génnal dem jàkkaarloog force de l'ordre yi kooku buggul yow sa doom ëllëg am avenir wala buggul yow nga dund ba am njaboot am ay doom kon loolu ñun ñoo ko war a bañal suñu bopp ku nekk na nga far fi nga far ku nekk na nga ànd ak ki nga bëgg a àndal waaye aussi ku nekk ci ñun na xam ne réew mi ñoo ko bokk ku nekk ci ñun na xam ne li nekk ci réew mi te askan bi di ko jariñoo ñun ñoo ko bokk ba kenn ci ñun bañ a nangu kenn di la jugloo di la defloo lu ko xamante ne ëllëg du jural Sénégal njariñ ndax ñun jeunesse bi ëllëg ñoo fi nekk ëllëg suñuy doom ñoo fi nekk ëllëg suñuy njaboot ñoo fi nekk kon war nañ mën a ñaan war nañ mën a def war nañ mën a liggéey pour Sénégal am jàmm war nañ mën a liggéey pour que infrastructure yi nga xamante ne Europe lañ ko daan gis te tey ñu am ko suñuy doom ëllëg mën cee bànneexu te loolu lenn képp moo ñu koy mën a may moo ñu def la part des choses far politique ak sàmm sa réew nañ far politique waaw ndax dëkku démocratie lañ nekk mais nañ sàmm suñu réew parce que on est des sénégalais te kenn amul fudul Sénégal kon dañ war a sàmm Sénégal. di la di la remercier Marena di wax ne rafetlu nañ vraiment waxtaan bi di wax ne aussi yéen journalistes yi am na rôle boo leen war a jouer pour que askan bi gën a am dal am na rôle boo leen war a jouer pour que jeunesse bi gën a xam lan lañ war a def ak lan lañ warul def. li ñu war a def mooy jàmm mooy développement réew mi li ñu warul def mooy bañu indi jàmm mooy yàq li nga xamante ne mooy suñu développement réew te yéen am ngeen ci rôle boo leen ci joué ñu leen di lancé waat un appel pour que vraiment rôle boobu naam yéen a ngi koy def mais mu gën a yaatu pour que vraiment jeunesse bi mën a comprendre li xew.